ñu nemmeeku sayu ñu nekkee ci procès usmaan Ousmane Sonko leader bu Pastef ay jafe-jafe yu bëri yangu-yangu yu bari day daldi di stagné taxaw temm rawatina ci wàllum njaay mi commerçant yi fare fii ci marché Sandaga di ci àddu vraiment procès bi métti na lool ci nit ñi surtout ñi nga xam ne ñu ngi ci marché di njaay jaayantu yu ndaw yi métti na te affaire politique rek la te affaire politique yi war vraiment warul mën a téye dëkk bi nii comme ça économie bi taxaw lépp taxaw métti na trop métti na trop franchement parler moom kuñ ko wax ak kuñ ko waxul métti na fekkee njël li ñu wax si sérieux dëgg la nañ def lu leer ñu fekkee atte waa ji mu leer ñu bàyyi sénégalais ñu liggéey mais point sénégalais yi tey ñu jox ay mambay ñaa suba ñu ngi ci aji saar ginnaaw suba ñu kenn xamul ci sénégal luñ nekk ñi bari ci ñoom di xamle rek benn ndogal la ñuy jël mooy tëj seen place ah, loolu moom ñu koy dundee day metti trop parce que ñun heure bu procès amee surtout nag bu ne Ousmane Sonko la ñuy oo moom ñun moom kenn dootu liggéey ba bu suba bii sax incha allah rabi man du ma xëy si waaw loolu moom du ma xëy si parce que tamit mun nga xëy lu ne fekk la si sa aussi suba yaa ko teg sa bopp. parce que comme que léegi dem ne ba xam ne réew mi kenn mënul contrôler dara état mënul contrôler kenn mënul am sécurité boo xam ne mën na ko teg pour nit ñu mën a liggéey mënuñu ko sa ñoom aussi ñun bu yàqulee ñoom du ñu defal dara kon nag ñun ñu jël suñu matuwaay. bu procès amee ñu ñu suñu kër. mu nekk situation bu metti bi ñuy dundu ci loolu ñu ngi ñaax rekk ku nekk jël ci ay responsabilité am. bi ko defee jàmm sax fi ku nekk dellusiwaat ci ay activité